ñëw nga ci say taalibe ñëw nga ci say soppe ñëw nga ci say cofeel ñi nga xam ne am nañ ci yow cofeel tabaarakallaahu bu ko defee du ñu guddal ndax gis ngeen guddi na te moom it am na yeneen jotaay yu mu war a dem ci guddi gi ko defee benn kàddu rek lañu fiy joxe muy euh, Biram Njaay mi nga xam ni moo war a rotal ñi nga xam ni ñoom lañu ñoo jàpp ñoo jàpp ci bés bi mu war leen a jox kàddu cant ak ngërëm moom rek lañ fi jox kàddu bu paree incha allahu jox sëñ bi mu mottali li ci des ñu ñaanalante ba déwén incha allahu rabbi wa ma bi aziz kon biram bismillah rahmatullahi taala kenn ku ci nekk ñu ngi lay sa sant di la ziyaar di la ballu àq di la coono bu baax a baax di ñiital ci nuyoo yi ki nga xamante ni moo teew ci tànt bi tey ngir rot ci biir tànki tànt bi ñu koy nuyu bu baax di ko teg ci wàccu waayam di suñu wasila di Sidi Ahmed Sy ñu koy nuyu bu baax a baax di am kontante ak ci teewaay bi nga xam ne teew na ko di nuyu nit mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi ci biir tànt bi diiraag bi ñu commencé léegi ngir jàppale ñu ngir wéttali ñu ngir bis bi mën a am réussite ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di dolliwaat nag di santaat yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu yàlla may wér ak kattan bañ fi mën a toogaat di def ni ñu daan def chaque at ñu koy sant yàlla bu baax jamono bi nga xam ne mbas mi jàll na fi ci la yàlla dogal yu bëri daal di arrêté waaye bu suñu borom dogalee mbas mi dem ci la yu bëri daal di ñëwaat moo sabab lu waat ñu mën fee ñëwaat ba mën a taxawaat fii jàppaat bis bi tey di ko def comme ni ñu ko daan defee. kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan it yàlla na yàgg yàlla na continuer li ko fi baare woon yàlla bu mu fi jaaraat ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu ñu am ay kàddu rek cant ak gërëm yoo xam ne mënul ñàkk ci li nga xamante ne mooy wàccaayu bis bi ndax kenn ku nekk ci ñun xam nañu lii ku ko gis xëy na daayira bi organisé na xëy na ay ndaw lañu waaye xëy na doole di demee woon li ni mel waaye faw am ñoo xam ne dinañ ci teg seen loxo ngir bis bi mën a am réussite ngir bis bi mën a jaar yoon ngir bis bi mën a jaar fa mu daan jaar kon loolu ñooñu mënul ñàkk tey ñu sant leen gërëm leen ci li nga xamante ni moom mooy wàccaayu bis bi gannaaw sant ak gërëm rek fu ñuy jiitalee ci sant gërëm yi ñu ciy jiital suñu waajur ki nga xamante ni moom ak suñu jur yi la woon yàlla dogal ñooñu làqu yàlla leen yàlla xee àjjana suuf ooyof seen kaw malaaka yi ñu teeru leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey moom rek cundum moo fi des suñu mag ñu góor ñi ba suñu gersoo moom la ñuy gis mu lu ñu jàppale ñu ci xam-xamam ci dooleem ci lépp lu ko yàlla wërsëgal kon faw ñu sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla yàlla guddal fanam yokk buntu wërsëgam muy suñu wayjur bay bay alxaaji Malick Ndiaye daaira bi nee na ñu ngi lay sant di la gërëm ndax amuñu sa fay yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay yaa ngi leen di jàppale ci tàkkusaan bi yaa ngi leen di jàppale ci gàmmu ci waawani di leen jàppale ci yeneen ak yeneen kon yàlla mi am fay rek ñu bàyyi la yàlla yàlla fay la gën gi fay ñuy dellu di sant di gërëm bu baax ñi nga xamante ni tey jii ñu amee fit ba mën a def bis bi ñoom ñoo tax ndax ñoo ñu ne woon dem leen soo leen demee incha allahu yi lépp lu ñu ci mën dinañ leen yokk doole ba bis bi mën a jaar kon ñooñu faw ñu sant leen gërëm leen di ci jiital suñu président union di suñu yaay di Cheikh Der ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko teg ci wàcc waayam moom ak ki nga xamante ne mooy suñu mag di Mouhamad Lamine Seck ñoom ñaar bokk nañ ci li ñu dooleel bu tàkk saan bi demee tey am réussite gannaaw yàlla ñoom ñoo ñu dooleel soutenir ñu jàppale ñu ngir ñu di ñu bàyyi xel saa su kon ñu leen di ñaanal yal na yàlla guddal seen fan yokk seen buntu wërsëg. jàppale leen gën gi jàppale ci barke muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant di gërëm suñu wayjur alxaaji xalifa lay moom ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko teg ci wàccuwaayam ndax yàlla dafa dogal bis bi buñ ci àggee dañ ci am ñoo xam ne bu ñu jokkee ci kër gi dañuy jël bis bi jagal leen ko moom bokk na ci ñi nga xam ne tey jagal nañu ko bis bi muy suñu wayjur alxaaji xalifa lay ñu koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam ndax wax dëgg yàlla ñu ci waaye lañ yaakaaroon bu tuddee koy yaakaar tasul kon ñu koy ñaanal rek yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay moom ak ki nga xamante ni mooy sunu kilifa moom it di secrétaire union bi di alxaaji Moustapha Sène moom it wax dëgg yàlla bokk ñu jàpp bis bi tey waaye ñoom ñu leen ko waaye wax dëgg yàlla seetaanuñu dara lépp macha allah ndax barki démb lañ jiital ñëw woote andi seen i jàppale indi seen i teraanga wax dëgg yàlla macha allah te teraanga ji wax dëgg yàlla rëy na ci daayira bi xëy na ñoom xem nañ ko waaye lu rëy ci daa daayira bi la kon ñu leen di ñaanal rek yàlla na yàlla guddal seen fen yaatal seen i wërsëg bu baax a baax di sant di gërëm suñu way jur bàyyi xalifa suñu way jur di leen sant bu baax a baax di sant yi ñi nga xamante ni ñi tey ñoo fi taxaw di jiital ñi nga xam ne ñooy jiital ci jumaa ji gannaaw yàlla ñoom lañu ñu njëkkee waaye gannaaw xat-xat am na te sëñ bi xaw na yaa xam ti dañuy tënk rek ci li nga xam ne mënul ñàkk ñu xamee ne noonu la waaye bu ñu sañoon comme ni mu daan demee lay demee saa su ne jaar fañ daan jaaraat waaye su xat-xat amee dañuy tënk yu mënul ñàkk rek ñu bàyyi xel loolu jéggal ñu ci yenn yi incha allahu rabbi. xam nga ziar boobu. nee bi muy jógee Dakar te ñëw fekk na mbooloo mi ñu ngi wàcc si di agsi ci kër ga macha allah sëriñ bi ne sëriñ alxaaji Mansour ne moo bëggoon a ñëwal boppam ba gaa woon ko ba pare ne fekk moom it mu amoon beneen yitte boo xamante ne jàppoon na boobu ba pare ba waroon ko dox macha allahu waaye faf na kàddu sëriñ bi ak si ci kawam macha allahu ne dañuy wax ne weewu gar dëgg na sëriñ bi ne kon pexe waaye ñu jaar rek fa la nga xamante ne moom la ñu waajoon nuyoo ak ñoom saabonte ak ñoom rek daal di jël si fi waaye nag ne jaam ak bëgg-bëgg waaye yàlla ak dogalam fa tabaarakallahu lépp rek yiw la góor gi doon wax di sëñ Moustapha si jamil bu la xasee teg ci ëttam boobu di la xaarloo nee na léeg-léeg nga toog fa ba minuit wala une heure du matin bu génnee ne la demal ba suba ne ne te lu téye bu ëllëg saa ñëwaat mu téyewaat dafa lu yàgg ne Seydi Jamil daan na ko def taalibe ba ñetti yoon mu koy doole recevoir ne mag ñi nag jàpp nañ ne loola bu ko Serigne Moustapha di def rek dafa am lu muy defar ci yow macha allah te nag tegtal yi bari ci lool ne ñu nit kon ñu jàpp rek te yaakaar ne xaar bi ak yàggaay bi. yàlla na ko yàlla yéegal ci maqaama boobu ci barkeb Seydil Jamil bi nga xam ne bu la xaarloo itam am na lu defar ci yow nee na kii Pa Alsaan Saw mi bàyyam daf daan wax ne mu ne sëñ Moustapha boo Musaana ñëw mun la demal ba bés sàngam nga dellu si ne moom bu ko sëriñ bi Musaana wax demal ba beneen nga dellu si dafay sedd ne ndax dafay am xam ne am na garantie ba diggante boobu wóor na ko ne du fi dee macha allah ne fa tabarakallahu ne nañ pap saw nee ñëw di ko wax si tudd doomam Babacar Saw ne bi xale bi juddoo papaam woo ko ne ko waaw tudd bi léegi koo tuddee mu ni ko Seydi Ahmed laa koy tudde mu nee na bàyyam ni ko ah man de gisee ma ko woon noonu su daal nga tuddee ko Serigne Moustapha wala nga tuddee ko Alaaji Mansour mii taaw ne sama yaay ne man de su ma nga tudde ko sa papa ne sama soxna man de su ma nga tuddee ko sa doomu nday Njóob wala sa xarit Masata Diop te mu génn àdduna ne génn na àdduna léegi ne papa am na daal comme ku am tudd du la nañ dem ba ci sëriñ Moustapha ne bi ñu demee ci sëriñ bi mu recevoir leen ne papaam expliqué sëriñ bi lépp lu ñu waxtaane ne mu toog ba yàgg ne comme ni mu daan def foo fekk bakkan bi sëñ Moussa foo fekk rek nee na tàngaay ak seet foo ko fekk rek bakkan bi mi ngi ñàkk est-ce bi jël musuwaar fonk bakkan bi sànni daal di ne nañ ko tuddee góor bi ne ñu pare ñu ñaan yenn. waaw nee na booba ndaaw Seydi Jamil mi ngi woon nekk ca buntu bopp. nee ñu dem di naan yi daal di rey seen kanam. papaam ne ko. yow deewu ko <laughs> est-ce mu ni ko li tax may la deew ko ñii wax nii ne du wees pour nga tudde leen ñëpp ne fekk boobu suñu soxla dafa wax ne ko nañ ko tuddee góor gi insha allahu taala ñii lim ñëpp du wees nee na sama papa ne ko yow deew ko ndax ñii seeni jëmil lim yëpp di nga am ba tudde leen macha allah barakallah macha allah ne sëriñ bi ne macha allah. ne xam ne daal yàggaay bi ak toogaay bi yëpp daal. yal na ko yàlla yéegee ci maqaamu Cheikh Sidi Mouhamed Moustapha. radiyallahu taala an. ne kon mi ngi beesal nuyoo ak siyaaram ci yéen ñëpp. di nuyu itam waa daayira bi yëpp. ne mi ngi nuyu suñu baay bu baax bii di El Hadji Medoune Seye. nga xam ne mbooleem union génnu jéer moo ko jiite tabaarakallaahu ànd ak mbokkam yi mu ko bokkal tabaarakallaahu ne mi ngi nuyu ki nga xam ne moo jiite union bi di Serigne Cheikh Der ak ñi mu ko bokkal ñépp muy nuyu Serigne Mouhamadou Lay fa tabaarakallaahu ne mi ngi liggéey liggéey bu rëy ci fiir fii ci biir Thiès ñoom ñi nga xam ne ñoo mbir mi ne mi ngi nuyu président bi ak présidente daayira bi di nuyu njabootu suñu baay bu baax ba sëriñ aaya sekk radiallahu taala anhu wa nee di nuyu mbooloom ñi mu bokkal service bi di ci liggéey fa tabaarakallaahu di nuyu bu baax oustaz Pape Modou Diouf mi nga xam ne moom lañu fekk muy def waxtaan wi sëriñ bi ne mi ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon animé bés bi mel ni woykatu daayira bi di tabarakallahu Samb Mbodj ak ñi mu àndal di waa kër suñu baay Ibrahima Mbodj rahmatullah alayhi wa radiya anhu ne tabarakallahu mi nuyu sëriñ Pape Alsan Saw mi nga xamante ne mooy président Zimolas bi mustarsidina li subbaani ahli tariqati tijaniya di nuyu itam sëriñ Njaga Njaay ak ñi mu àndanteel ñëpp di di nuyu ñoom ay as ñoom ñëpp ñoom Modou Ñang tabaarakallaahu mi yëpp rek sëriñ bi ne mi ngi soxna yu tedd yi nga xam ne macha allahu li jotaay bi yàgg yàgg seen kanam sax croisé wul ne fa tabaarakallaahu mel na ni kàddu yi nga xam ne ñi fi jiitu ñoo ko doon yëkkati ne dafa mel ni kon xam na daal yéen meroo leen ci kàddu yooyu macha allah ñu dollee sant yàlla bu baax ak nag sëriñ bi ne waaw sëriñ bi ne nam mën a waa jaxaaw lool macha allah di doon leen sant di ñaan yàlla yàlla na yàlla may ñu fekkee ko at yu bare bare ne sëriñ bi itam nag day li bàyyi Omar Gueye daa wax ne surcharge yamul ci oto waaye loolu moo daal sëriñ bi ndax nit it dafay surcharge ne ni mu ko waxee léegi waa Louga suba la ñuy ziar. yàlla dogal na sant bu muy jógee Dakar ci la convoi bi di àgsi. macha allah. kon nag ñu dollee sant bu baax. di ñaan yàlla rek. yàlla yàlla dolli sutura yi. yàlla yàlla dolli ñu jàmm amin. tabaarakallahu ne la suñu wayjur wa Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu ne Sëriñ Mansour baayam daf daan wax ne bu la nit joxe xolam ba mu jeex noo mën def rek fexeel ba faye ko sa jëm ne loolu moo waral bu ñu wootee masha allahu lu mu xat-xat rek ne dana fexe ba agsi fi donte ne juróomi minute sax lañ fiy def ne mu mel ni kon mag ñi fi jiitu woon jotaay bi sag bu rëy la ci ñoom ne suñu wajur sëriñ Babacar si Abdou suñu yaay Ndey Mariam léegi dafa jóge ñëwoon na ndeysaan ak sa doom soxna as yëpp <laughs> waaw tabaarakallah waaw ah, fa tabaarakallaahu mel ni macha allah Bay Abdou daf wax ne njaboot ju ne war nay di sagal ay way juram yi ca barza nee ndax fa tabaarakallaahu dafa mel ni àdduna tukkeegul wala bu ñu buftu ba jéggeeguñu siraat. jéggeeguñu siraat. atteeguñu kenn. atteeguñu kenn. kenn demagul aljanna. kenn demagul safara. علينا بمك زيادة من سبب يعنا محمدنا الموتى أمنك بسبب منك مال أعمالنا يوم الخميس له ويوم نفع نفع نفع فائد

يوما يسنن في الفارس المرام nekkoon bu yàlla ne man dinaa julli yow fukki yoon xam nga ne benn yàlla rek ëpp nañu macha allah ndax itam koy mën misaale soxna si nga xam ne dafa ëmb. ak àdduna bi ni mu yaatoo doom ba ca biiram li am ah, àdduna bi yaatoo ci yow xale bi nekk ci biiru ndeyam noonu la biiru ndeyam yaatoo ci moom ba tabaarakallah ba tax na différence boobu am ci diggante biiru yaayu xale bi ak ni àdduna bi toll différence bu ko ëpp mi ngi ci diggante adduna bi ak fa yàlla nekk wasia kursiyuhu samawaati wal ard wala yauduhu xifzuhuma wa huwa al aliyul azim nee te yàlla kon sées ba rek la wax moo gën a yaatu àdduna ak li ne kon néeg bi sées bi nekk nu war a Ah, ne dëkk ba nag kon dëkk dëkk ba nekk ba nekk <laughs> macha allah ne fa tabaarakallaahu kon nag def ci yonent bi ak sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu daal la mbir yi nekk moo tax mag ñi boyal ñu joyal ñu ci sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tabaarakallaahu Seydi El Hadji Malick radiyallahu xam ne mbir mi nag foofa la nekk mu woote ca Tiwaawan ne koo xamante ne amul lu dul benn dëgg di ko wax ci benn guddi bu sañoon képp ku ko yaakaar fekk si ko ndax sëñ Moustapha daan wax ne kër gi lu ñu sos ci dëgg la ko sos te lu ñu sos ci dëgg nag njëlbeen ba dafay sew waaye muñ ko dafay rëy fa tabaarakallah Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha mu ne gàmmu yi def naa ko muy seen tarbiya bayloo ma leen tool gorloo ma leen yettaloo leen àndal leen nekk benn sol seen mbubb yu rafet dugg ci seen oto yu rafet fekk seeni moroomi taalibe ñu teeru leen teral leen ngeen fanaan ñoom màggal yonent bi ba bët set bu ëllëgee lu yonent bi am balaa ciy sédd kenn sédd leen ba pare ne moo tax góor njaag juuf njaag juuf nee na groupement xaddam la bokkoon ne moom daan na wax ne tarixa bi la. raayu sharia ak sunna. nee te ci raayu a. est-ce ci ca bopp locomotive di ko conduire. képp ku ko remplacer ci jamono. da ngay ak ña la booleel. ak ña la yàlla ci biir ba. lonk ko ci locomotive ba rek mu jëmee léegi nag tabaaraka <laughs> est-ce que allah nee waaye nag nee boobu nag ki ànd ak Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha moom première classe lay voyagé waaye loxo waay est-ce que allah nee fa tabaaraka allahu ba tax na macha allah. loolu mooy tarbiye bi dox ci suñu diggante ak ñoom te nag kéemtaanu Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Pire mooy waal nee na Serigne Moustapha kéemtaanam dëkk nee mooy waal ne yaakaar na ni kenn musul dégg ne Serigne Moustapha radiyallahu anhu dem na waaw ne fa tabaarakallahu te yaakaar naa le am ci taalibe ca waalo yaakaar naa kenn amu ko nee nekku fa te ku ne dem nga fa waaye moom demul ba pare yóbbu ñëpp ne kon am na loo xam ne xel moo koy maye ne am na loo xam ne nag martaba moo koy maye ne mu ne loolu nag daf koo doon na ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ndax bi ñamu daan yabal nee na moom Sëñ ñamu daan yabal ñoom Baye Sëñ Assane Gueye ñoom Baye Omar Gueye nee ñoom ñoo daan dem waalo ba toj ko ne kon ba dem demuñu woon ci seen jëmmi bopp waaye dañ doon demee ci jëm Serigne Moustapha ndax inna rasula de xadril mursalih takimi fa tabarakallahu ndaw lu ne doolee ka ko yónne lay yóbbu ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi waa Makka fitnaale jullit yi ne ba xajatuñu foofa mu jox leen ndigal ne nañu dem xabasa am na buur bu maalu bu fa nekk ñu koy wax najaasiyu buur booba nag kenn du nopp nit ci dikk ci dëkkam balay teg lu la ja lu maanaam lu jaaluwul mu ne kon dem leen ngeen seeti najaasiyu Thank you. Hallelujah. dañuy njaaloo tabaarakallaahu dañuy naan sàngara dañuy kaas di def lu bon loo xam ne lii nit ku baax warul nangu lool ñun nag mu am suñu benn mbokk boo xam ne xam nañu ay maamam ci suñu biir la bokk mu ñëw ne am na buur boo xam ne ñi fi nekk ñépp moo leen bind dafa ñëw pour joyanti ba teg ñu ci yoonu njub jox ñu nag ay tegtal yu leer ñu daal di koy gëm ne gëm googu ñu ko gëm nag moo naqari waa Màkka ba ñuy fitnaa mu ne ko waaw man man dama gis ne bi ngeen may nuyu ni ma ñëpp di nuyoo yéen nuyoo leen ma noonu ñu ne ko waaw ñun suñu yonente boobu nga xam ne moo ñu wax li daal suñu xel ñu gëm ko topp ko ci loolu moo ñu xamal ne ki ñu bind fa mu nekk ca aljana macha allah bu ñu fay nuyoo du ñu def nii sa gaay di def di sujjóot dañuy wax ne assalaam assalaam assalaam laa yasmauna fiha lahwan wala tasima illa xiila salaaman salaama salaama ne boobu ne ko ah yéen loolu lañ leen wax mu ne ko waaw loolu da lañ sunu yonent bi wax mu ne waaw seen yonent boobu ndax am na lu mu wax ci sama yonent di Seydina Isa alayhi salaam ñu ne ko waaw am na lu ci wax de mu ne seen yonent bi lu mu wax ne mu leen yonent bi nee na de Isa jaamu yàlla la yonent bi yàlla la ne ñoom dañ doon wax na tekkiwul dara nee na ñoom loolu la ñuy wax waaw mu ne ko nag Isa jaamu yàlla la ba pare yonent bi yàlla la neen maqaamam awóodiya caaxaan neen moo tax nag macha allah fu yàlla tuddee service ci yonent bi rek abdullah ci yàlla indi subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa nee na abdu boobu nag moom la dàkkantale Seydina Isa ne ko jaamob yàlla la ba pare yonent yàlla la fa tabaarakallah mu ne waaw est-ce que yéen seen yonent bi daf dafa ñëw rek wax leen lool rek bàyyi leen ñu ne ko déedéet am na téere bu mu wàccee macha di ñu jàngal naka la ñuy dundee sunu diine mu ne aha mu ne ko téere boobu nag ndax yonent bi boromam bi xam ne moo ko yónni ndax am téere boobu am na lu wax ci yonent yàlla Isa ne ko waaw mu ne ko fan ko waxe jaafar daal di jóg daal di commencé jàng sooratu Mariam nee na fan toog rango yaa ngi bas ba fi mu tiim rango ñi dafa tuuru dafa mujj a nekk baax tooy xëpp fa tabaarakallah yi bi ñu ñëwee ca xabasa nee yi waroon najaas yi yëpp kenn ku ci ne dafa indi ab neexal jox ñoom ñëpp nag tabaarakallahu ay jumtuwaay yu raar yu jafe yoo xam ne moom lañ leen indi tabaarakallah mooy nag lu ñu aajo woon lool kenn ku ci nekk ñu jox la ko ne bi gars yi waxee nag macha allah soxla moo ko laa waram asumi te amul sax lu ma ci négocier ak yéen macha allah ne keroog bi Jaafar waxee ci martaba yonent bi saa saa la doon waxee. loolu moo tax mu toj xolu najaasi ba waa màkk neexal yaag alal jaag lépp lu ñu fa indi woon ñu delloo leen ko fat waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dafa mel ni maqaama boobu nag moom la sëñ Moustapha si jëfandikoo fii ci waalo macha allah yabal ay taalibeem ñu am fa ay fan di waxtaan waa waalo ba toj xolu waalo waalo yëpp ba ñu àndandoo gëm Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha dëggalandoog Seydi Jamil ci sa bëti jaar Sëriñ Moustapha jëful la ngay jëful woon bàyyi Sëriñ Ahmad Asi rëyul la bay rëyul woon

اسكي سيد الجميل اسكي سيد ابو بلاد اسكي سيد الجميل آسم ما نفاس آسم ما نفاس يا أخي يا صدقة بل راجب أسيب بقى نفيد جميل زاولا لك دلان دلبسين نفيد جميل صدقة بل راجب أسيب بقى نفيد جميل زاولا لك أجا خير مسين نفيد جميل صدقة بل راجب كيف صيب كان فيه جميل سبالا وجحا بسنين بفاس سبالا وجس كيف سنين بفاس لنا على جراس وميسيس من فات كيف ونسلي المطرق صبتي جاب لنا على إراس وبيس يسير باي آية سير جرد سليم أنا دكتور كشوك تجيلانا بلا سبنا غفا جرامة جرامة جرامة جرامة جرامة اسم ربي الله مجد احمد مجد سيدي احمد الله مجد سيدي احمد الله لو سيدي جميل الله لو سيدي جميل الله خليفه سيدنا بكر الله خليفه سيدنا بكر الله جميل سيدنا بكر الله جميل سيدنا جميل الله جميل ما الله جميل سيدي جميل الله Voice in your soul, love. You're ready to be born. يا شريف القوم العاجب شريف القوم العاجب قوم جواد Together dafa meññi benn kéemtaan mu mel dañ ko laaj bi kan la mu ne huwa Mustafa waaye nag kasamihil ahdanaani sëñ Mustafa ba pare nuroog maamam yonti Muhammad sallallahu wa sallam nga xam kon lii wax léegi ci li Jaafar demee ci doole yonent bi ba toj xolu xabas maanaam najaasi ak waa xabase yëpp noonu la Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha yabale ay ndawam ñu dugg biir waalo ba toj xoli waalo waalo yëpp kon tabarakallahu ne macha allahu moo tax mu daan wax ne insha allahu taala fas yéenew ma ànd ak kudul jariñ Cheikh Seydi Mouhamadou mu ne ki ma jaaxal daal mooy ki bëgg ak man ba pare di yàkkamti mu ne baytu ba Seydi El Hadji Malick si waxoon dafa mel ni Serigne Moustapha si moo ko dindi moo ko dund wa xayir wala taxtar fa kayfa ixtiyaaruna fa al umuuri للمتقين وخير ne booy tànn tànn lool yàlla wala taxtar te bul tànnal sa bopp moo tax sëriñ bi nee na sëriñ Moustapha du sëriñ boo xam ne day yëkkati ba pare naan yàlla jàppal dafay ñaan ba ñaan ba yàlla yëkkati mu door a jàpp ne kon nag ku ku yàkkamti doo mën a loolu. ne koo xam ne yàlla rek ngay déglu. xaaroo ku dul yàlla. fa tabaarakallaahu mu am bés. sëriñ bi ne dafa am bés booba mi ngi mu dem ci benn maamam bu ñu doon wax alxaaji Omar ne fi mu doon liggéey ak këram sorewul ne su demee ba loxoom féex mu ne dafay doxantu ba ca moom ne ñu toog waxtaan ne góor ga ci wàllu xam-xam rek lay waxtaan ne macha allah nee na léeg-léeg mu baax ko ay mbir yoo xam ne macha allah. ba benn bis rek ma xëy pare sama liggéey ne daanaka bi 9 heures di jot fekk na mu pare li mu doon def yëpp ne mu toog ba ay boori 10 heures ne ma ne ah man de fi wéet naa te bureau bi kenn nekkul waaye xaaral ma dem rek doxantu ba ci sama maam rek ma seeti ko. nee mu dem rek maamu ni ko tey de am na mbir mu doy waar mu ma lay jox moo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis nee dafa wax ne am na benn aaya ci alquran ku koy jëfandikoo sa dara dootul tardé sa lépp mooy dox mu ne ko ah ndegiteel loolu am na ci alquran mu ne waaw waaye sëriñ damaa bëggoon bala ngay wax lool dama bëggoon balaa ngay wax lool ñu weexal ñu xor waaw damaa bëggoon sëriñ bi sekkere bii mu bëgg wax balaa mu koy wax ñu xor ko ndax nag wax dëgg yàlla li mu fi wax su fekkoonte ne oustaz moo jaabante fii léegi wax loolu ñu jox ko loolu te sëriñ baa ngi jógee ba Dakar ak yoon wi ni mu demee li fi gàllankoor lépp ak yiw yam fa bàyyi yëpp wax dëgg yàlla mu nekk fi ba heure bi te taabal ji dara nekk ko fi moom yéena ma ko waa Cees ak waa Jaxaw fëggaleen poset yi joxe ngeen ba sonn waaye lu fi des na ñëw waaw li ngeen joxe yàlla yàlla yàlla barkeel li ci des ba mucc ordonnance ko yàlla yàlla furandil li fi def lépp ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu fi waaye indi yàlla yàlla furandil ko ba mu sut njortam ci barke Cheikh Sidi Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo tax ñu tànt tànt bi moo ñu fi bàyyi ba heure bi ne tabaarakallaahu te yaakaar na lool nag ah waaw sëriñ kii kat day am xor nuñ koy tudde <laughs> ñaan boo bëggee mu nangu da koy weexal <laughs> da koy weexal su defee nag kon maa ngi koy jéggalu nag ndax du lu santaane it lu bëgg waaye nag wax dëgg yàlla fu xel lu daw wala fu fas lu daw xel moo fay daw tabarakallah si <laughs> waaw loolu baatu wolof la waaw ne fa tabarakallah ma sha allah ne maamam ni ko daal loolu am ne ma nga maam loolu da yéema affaire bi nag nee na mu jox waaye nag mu nekk ci xelam mi rek nee na ne lii daal jaaxal na ma ne bi mu ñibbee Dakar nag nee mu gis sëriñ Moustapha radiyallahu taala anhu mu ne ko ah man de góor gi sama maam dafa am lu ma jox loo xam ne daal yéem na ma lool mu ne ko ah lool lan la mu ne nee na am benn aaya boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne ku koy jëfandikoo sa léppay dox sa dara du tardé ne tama gis sëriñ si dugg ci politique bi di ci wax daanaka ba seen der di xaw a yàqu ne xanaa aay bi sëriñ si dañ koo xamul wala dañ koo mënul jëfandikoo alquran yàlla yàlla dimbali leen. ba léegi nga xam ne moom la ñuy def ci politique ba ñu jàng ko alquran ngir yàlla dimbali leen. nee fa tabaarakallahu mu ne baayam ni ko ban aaya la. mu ne ko waman yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasbuhu inna allaha baaligu amruhu xad jaala allahu kulla cheyin xadra bi kulli cheyin xadra li kulli cheyin xadra ne bàyyam Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha ne dënn ne ah loolu da dëgg gu wér ci wax rek bàyyi nañ ci lu ko ëpp waaye nag aay bi dafa mu ne ko bàyyi kon ban sart mu ne ko mooy bopp aaya bi mu ne yàlla dafa wax ne wa man yattaqillaaha ku ragal yàlla yaj'al lahu maxrajan ñu wutal la génn waay ne loo dugg rek yàlla génne la ci waaw ne yàlla nag bu mu génne ci problème moom nga génne ci macha allah ne yàlla waxaat ne wayar zuq min xaysu yaxtasibu sa wërsëg da lay da la jóge foo ko foogeewul yatawakkal alallaahi ku say mbir nga wékk ko ci inna allaha baaligu amrahu yàlla mooy jotale say mbir loo yóotu jotuloo ko rek yàlla jotal la ko mu ne ko ah xanaa kon loolu moo waral yow woowuloo kenn <laughs> ne sëriñ Sowa bi mu ko waxee loolu leeral ko ko moom mii moo ko ne bàyyi xanaa loolu moo tax yow woowuloo kenn ba pare nit ñëw wuy si la laajoo kenn nit ñu yëkkati di la jox parce <laughs> que wa min haythu la yahtasib waaw ne fa tabaarakallaahu macha allah aaye boobu nag wax dëgg yàlla mu mel ni dañ nga jàng musalas walla nga jàng murabba wala nga jàng xeeti ñaan yi nga xam ne boo ca jaaree am na noo koy doxale bu lëm ba àggee rek daal di faj ne loolu nag bari na ku ñuy ràng ci réew mi ñu leen di jiiñ wàllu yu fekk dañoo xam ne ñuy ñaanee rek wa ki nga xam da nga ñëw ñaanlu ko aajo ba faju bu di ñëwee di ko ñaanlawaat la mu defaloon kee rek lay defaat macha allah mu ne kon kooku dafa xam ñaan xam yoonu ñaan kooku nag lu nekk mën nañ leen ko ji ndax ku ñëw ci yow bu la diisee aajoom rek nga ñaanal ko aajo ba daal di faju ne fa tabaarakallah am na nag koo xam ne saaxibul ijaaba la moom dafa jaamu yàlla ba yàlla jox ko ijaaba ne kooku nag du sax sonn ci ñaan yàlla dafay rus sax sonn ci ñaan yàlla wa tabaarakallaahu waaye aajo bu faju du dugg ci noppam ne ku yàlla narul faj sa aajo daal doo agsi ci moom ba koy diis waaye bu la yàlla dimbalee ba nga toog ci kanamam ne jógal rek dem sa yoon xam ne aajo ba faju na ne xam ne kooku nag martaba moo koy maye fa tabaarakallah ne moo tax mag ñooñu yàlla defaloon leen loolu nee na dafa am benn kaset Cissé jinge di ci wax ne Serigne Cheikh nee na ko Serigne Moustapha Day bi muy wut buntu xanaa bëgg nit ñi agsi ci moom rek moo tax waaye konoon du jax sax muy wut buntu fa tabaarakallah ndax koo xam ne moom génnul duggul jaabantewul te lu mu itti woo yàlla fekk ko fa macha allah kooku bu ko neexoon ma ne wut bu dugga ne kooku nag la ñu yàlla booleel moo tax nag nañu góorgóorlu dañoo war a góorgóorlu ne Serigne Babacar dafa wax ne radiyallahu taala an ko am lu jafe da ngay jafe ne Seex Sidi Maam nu Sabaa nee na incha taala du ñu leen nax te du ñu seetaan ku leen di nax kon nag yéen góorgóorlu leen ngeen bañ a nax seen bopp ne kon nag kuy naxaate ne ku fi ne ku fi lor rek yaa nax sa bopp ne am na góor gu ñuy wax alxaaji Bara Jóob ñàkkul ñu bari xam nañ ko ne kooku service su Serigne Moustapha yëpp moo ko daan dox ne ba ñuy liggéey jàkkay maam Maay Sàll ji ca Louga nga xamante ne matériel yu bëri moo ko daan yóbbu ci camionnette am ne bés Sëriñ Moustapha yónni ko mu dem doxi ji yónnent ba ne Louga la yónni woon ne comme que am njóobeen la muy wàññeeku muy jamonoy xaal Euh, waaw nee na boo paasee ndànd rek ci dëkk yooyu nekk ci wetu ndànd ne macha allah. ne foofu jamonoy xaal xaal ji dafay bari lool ci mbedd bi macha allah ne góor gi xam naa romb mu gaare taxaw. daal di jënd ñaari ponkali xaal daal di dugal ci ginnaaw camion bi daal di continuer nee booba autoroute bi amagul woon booba yoonu Rufisque bi rek moo fi nekkoon nee bi mu ñëwee ba boori ginnaaw raay ba boori Icotaf ci usine Icotaf bi nee moom ginnaaw raay la dëkkoon nee na mu daal di jàdd foofu dem këram yëkkate ñaari xaal yi mu jëndoon daal di ko daal di tourné oto bi wëlbati ko jëm Dakar ñëw dem ci kër Serigne Moustapha nee bi mu agsee ba nuyu Serigne bi nee na diiru bi mu duggee ci tànt bi ak léegi Alaaji Baro waxul Serigne Moustapha waxul nee góor gi mi ngi toog di jaayu rek koy defee yàllaaji borom moom it mi sëgg rek ni yokku rek ne booba moom jotaay baa ngi moom lool ndax xamul sax fu mu féete nee na Serigne Moussa moom bu la xasee ni yemal fii moom ak koo mën a doon ak noo mën a toll nemm rek def nee na loolu yaakaar na bàyyi alaaji medul mii xam na ci dara am na bés mu mu jotee turandoo mu tudd Jamil moom bii mu am na mu def doom jooju ñëw di ziar si sa papa daf nuyu mu ne ko médu ah. mu ne ko dee leen def attention ci <laughs> ah, <laughs> moo tax wax dëgg yàlla alaaji baro toog rek nee na sëñ Moussa ni ko alaaji xanaa dafa am foo jaaxloon ne alaaji bar na ko dee si daatu moo fenn mu ne ko ah kay mu dem deuxième asamaan fekk fa ñu rukkon ay malaayka yu rukkon rukkon booba moom la ñuy def ba yowmal xiyaam duñu ko changé ne mu dem ba ci ñetteelu asamaan gis ñu taxaw taxawaay boobu moom yowmal xiyaam rek la la jëm mu dem ba ñeenteel ba fekk fa malaayka yu sujjóot sujjóot booba du ñu tàqaliko ak moom lu dul yowmal xiyaam mu dem juróomeel asamaan fekk fa malaayka yu toog toogaay booba ñoom it moom la ñuy wéyee ba yowmal xiyaam nee ñu demaan ba ci juróom-benneelu asamaan ñu fekkaat fa ñuy sujjóot sujjóot booba moom lañuy ñuy def ba yowmal xiyaam bi ñu àggee juróom-ñaareelu asamaan ñu fekkaat fa ñoo xam ne dañoo jógaat taxawaat mu ne kon asamaan bu nekk am na position boo xam ne ay malaayka def nañ ko te position boobu jëf jooja du ñu ci jóg ba keroog yowmal xiyaam loolu nag mooy benn rakka est-ce que est-ce que bi ngay julli position boo ci def rek am na malaayka boo xam ne ci position boobu la nekk te du ko soppi ba yowmal xiyaam yow nag nga mën di dem di dellu si rek di ko def di ko defaat ah yaa ah est que mais loolu yàlla dina ko nangu. mu ne moo tax kon nii ñu ñu tracé ligne bi ñu taxaw di wattu yoon bi ñoom duñu bougé fenn fa ñu aar dara du fa dugg xamaa ahlu bi shukri xaqa himayati mu ne kon yow mi dugg ci diggante bi nag boo sàgganee ba génn.